opération tay bi yaakaar naa continuité la ci opération yi nga xamni tamali won nañ ko diko def bobu ba ndax depuis premier jour yi ñu déclarer ni amna na benn cas fi ci Touba euh, bobu ba léegi service d'hygiène toogul ñu ngi ci ci terrain bi di def suñu liggéey premier jour bi demoon nañ ci daru manan euh, def li nga xamni moy suñu liggéey ci walu décontaminer locaux yi mais également dem ci kër ki nga xamni fa la eh, mbir mi tàmbalee def si suñu liggéey boobu léegi aussi ñi ngi continuer ci lool amna équipe yo xamni ñi ngi sur le terrain eh, de façon permanente eh, suba si yëpp ña nga fa guddi gi aussi dañu fay passer la nuit pour que chaque fois bu amé ay opération ñu mën ko def au niveau aussi des domiciles ñi ngi fay dem également di mener ces opérations là bo lolu tax na tey mën nañ ni mo indi résultat yi donc ñi ngi ci sant borom bu baax sant

ci recommandations yi nga xam ne ko doon joxe bobu ba léegi en matière d'hygiène et de prévention telle que le lavage des mains euh, donc ñu ci baye xel bu baax euh, di éviter di di ñandu wala di teuf di ci ci ci mbedd mi ñu koy def ci mouchoir di ko sànni ci poubelle yi également bu ñu amé ko xam amna ay signes yi muy développé mu mën a woote su ko defee équipe de prise en charge yi ñu mën a ñëw foofu mën ko jël en charge comme ni mu waree donc loolu vraiment ñu ngi ci euh, ou population bi ci donc comme nous ngeen ko euh, service de moom kon desul ginnaaw ñi ngi ànd ak ci liggéey boobu Touba kanam mu ñu euh, ci produits pour ñu mën def bi correctement kon mën na ni vraiment lépp yemm na li ci war yëpp am nañ ko te produit bi ñu utilisé aussi produit bu baax la. liggéey bi moom nekkul liggéey benn fan liggéey la bu continuer su ko defee saa su ne bu dañuy descendre sur le terrain def li nga xam ne mooy li ñu war donc app produit bi daanaka lu lu am solo la d'ailleurs moo tax ñu liggéey ko ci guddi gi nii pour que produit bi gën a mën a def effet parce que boo ko defoon ci bëccëg bi euh, lumière bi ak tàngoor bi da koy gaaw a yàq mais boo ko defee ci guddi bi dana mën a toog mën a liggéey li muy liggéey ci doomi jàngoro bi su ko defee ñu mën ci am ay résultat suba si donc nit ñi dana mën a ñëw liggéey si euh, ak xel mu dal fekk vraiment mu nekk bërëb boo xam ni liggéey nañ ko ci ni mu waree vraiment am na ñeenti oto yoo xam ne ñoom ñu ngi woon ci terrain bi mën nañ ne am nañ juróomi oto sax nga xam ne beneen oto boo xam ne moo doon assuré li nga xam ne mooy supervision bi ak ñeenti oto yi nga xam ne ñoo def appareil yi ak li nga xam ne ñooy produit ak ndox bi ñuy liggéeyee euh, am na aussi juróom-ñaar ci ay euh, agent yoo xam ni ñoo nekk ci liggéey bi am juróomi appareil yoo xam ne utiliser nañ ko benn appareil bu mag benn nébulisateur bu mag ak ñeenti appareil yu ndaw yoo xam ne moteur la te dañ koy gàddu donc yooyu ñooñu ñu permettre ñu mën a def liggéey bi fim nek ni marché bi yeb def nañ ko dajina ba def sax li nga xamni moy artère bi jëm Touba Mbacké amna lu bari luñ ci def euh liggéey bi nag daanaka li comme niñ ko waxé sans continuité la ndax jot nañ def juma ju mag ji jot nañ def yenen juma aussi jot nañ def aussi cimetière yi def ay morgue yu bari def aussi keur serigne ci def nañ ci lu bari keur khalifa bi def nañ ko porte parole def nañ ko ak yenen keur diine yo yu bari yo xamni vraiment jot nañ ko def te dañuy continuer liggéey boobu également donc euh, comme ni ñu ko waxee sànq du liggéey benn fan du liggéeyu ñaari fan liggéey bi continuer la parce que tant que jàngoro ji mi ngi rek daanaka ñun suñu liggéey du arrêté